Assalamualaikum wa rahmatullah ñi ngi doyo mbokk sénégalais yi dégg suñu kaddu yépp di leen indil ci wolof programme pastef muy projet bi nga xam ne moo ñu xeex ba ba léegi pastef teg programme bu mucc ayib boo xam ne ci la fasee yore réew mi di sénégal ci juróomi at yi ñu jëm waaye yemul rek ci juróomi at yi programme la boo xam day concerner ëllëgu sénégal ba faawu muy programme bu am solo bo xam Pastef liggéey na ko ci ay ati ati at euh budé version bu mujj bi daanaka mi ngi ko liggéey ci euh, ñetti at japp ñent lu toll ci junni ak ñeenti téméré borom xam-xam liggéey ci liggéey bo bu jéggi dayo sax té rafet 1400 cadre junni ak ñent téméré borom xam-xam liggéey na ci projet bobu ci lu tomb toll ci fanweer ak juróom-ñeenti poñ 36 thématiques yoo xam ne euh, benn bu nekk day concerné dund sénégalais yi ñu jox ko ñu ci am xam-xam lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukki expert 360 experts maanaam koo xam ne mbir mii mooy mooy domaine am moom rek la xam euh, lu toll noonu liggéey nañ ci projet bi muy projet bu mucc ayib ñu fas ko yéenee doxal nag ci Sénégal buñ leen falee ci seen mandat bi di juróomi at fii ak 2029. projet boobu nag bokk na ci liñ li ci jiitu mooy lu jëm ci président de la république président de la république bu Sénégal ñoom seetlu nañ ne dooleem dafa bari lool ba de sañ naa buum di ak a buumi ci Sénégal di def lu ko neex doole jooju nag dafa ëpp ñu jox ko benn nit muy def lu ko neex te kenn du ko mën a arrêté moo tax ñu ne doole président de la république dañ koy wàññi jaare ko ci eh, yenn point bi ci njëkk mooy président de la république dootu jiite parti politique comme li ñoom Senghor k Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade doon def ak Macky Sall nekk président nekk nekk tamit sa njiitu parti loolu amatul Sénégal ñoom buñ toogee dañ ko fiy jëlee ku jiite réew mi dooto jiite parti politique kon Bassirou Diomaye Faye buñ ko faloon dootu du jiite parti Pastef jiite wu ko sax ñaareel bi mooy président de la république dañuy jële ci moom

bokk na ci li ñuy jëlee ci loxoy président de la république mooy dootu am premier ministre ñoom buñ faloo gouvernement yi ñuy teg du am premier ministre ndax premier ministre président moo koy yilif yilif ay ministre am lu leen wax ñu def ñoom liñ bëgg a teg mooy vice président boo xam ne day am ay sañ-sañam yoo xam ne président de la république du ko mënal dara président de la république day am ay sañ-sañam vice président bi am ay sañ-sañam bokk ci wàññi doole président de la république mooy corps de contrôle yi ñi nga xam ne ñooy saytu fan la alalu Sénégal dugg ku ñuy jiiñ sàcc yooyu ñoo lay topp ñoo ñu président de la république dootu leen yilif dootu leen yebal fenn pour ñu def seen liggéey pour ñu contrôler buñ contrôler ba pare tamit ba ba ba ba jàpp kenn wala ñu tuumaal ko dañ koy yóbbu ci yoon direct ñu àtte ko waaye duñ jox rapport bi président de la république mu naan teg naa ci sama conco loolu dafay jeex président de la république dootu yilif corps de contrôle yi corps de yi dañuy am seen ñu fal procureur spécial bo xamné du dépendre ci présidence de la république du dépendre ci ministère de la justice wala de l'intérieur euh, euh, procureur spécial bobu moy yi def corps de contrôle yoyu nga xamné ñom ñoom buñ paree dañ koy jox liggéey bi direct justice def liggéeyam képp ku luubal le Sénégal génné wat ko président yoonam du ci nek bokku na coppite yoyu ba légui liñuy wax de euh, Sénat Sénat bi nga xam ne moom mooy yilif élec moom mooy yilif élection yi mooy arbitre bu mag bi ci élection yi nga xam ne gis ngeen li ci Macky Sall defoon bu yàggul jékki-jékki rek tas ko. Euh, kon Sénat euh, nga xam ne mooy kuréel gi nga xam ne mooy sayto élection yi nga xam ne mooy arbitre bi am ci dogal yu am doole Sénat googu tamit doole jafa président de la république amoon dañ koy wàññi. nga xam ne dootu leen yilif dañuy nekk kuréel gu moom seen bopp dañuy soppi tamit ni mu tudde ni mu tudd dañ koy soppi nga xam ne liggéeyam day soppiku waaye tamit ay sañ-sañam dañ koy yokk moom Sénat ba président de la république dootu leen yilif ba man leen a def ko neex bokk na coppite yooyu sénégalais léegi bu nekk bindu ci liste électorale léegi dootu am léegi sénégalais bu màgg rek ba mat a wote da ngay mën a voté direct boo xasee am carte d'identité rek mën ngaa voté léegi léegi foofu lañ jëm léegi ñu naan ubbi nañ liste dañuy dem bindu ji léegi day jeex ñoom buñ leen falee waa Pastef sénégalais bu mat a voté rek boo xasee am fukki at ak juróom-ñett am nga carte d'identité rek mën nga voté directement amul bindu amul bindu directement ñoom loolu bokk na ci coppite yi ñu bëgg a indi bokk na coppite yooyu doole ji président amoon tamit ba sañ a ku ko neex ci ay direction wala nga jiite lenn euh, ci ay postu léegi poste yu baari dañ koy ubbi mu nekk poste yoo xam ne concours lay doon appel à la candidature lay doon maanaam dañ naan kat bëgg nañoo nommer fenn mm, douane day laaj ku ko jiite wala RTS wala port wala fenn bëgg na bëgg na directeur bu ko defee képp koo xam ne yaakaar nga ne war ngaa mën a jiite kuréel googu nga dem déposer sa dossier ñu xool kan moo gën ñu fal ko waaye du nekk loo xam ne président mooy nommer ku ko neex léegi concours lay doon appel à la candidature lay doon loolu dina wàññi ger ci réew mi. waaye tamit dina fi jëlee kuñ fal ngay def lu neex président ndax dangay xam ne askan wi ñoo la fal ak sa compétence sa man-man bokk na ci yu bees yiñ bëgg a indi ci réew mi tamit mooy luwaa boo xam ne day dooleel képp koo xam ne da ngay jéebaane kuy def lu bon ci réew mi wala wala kuy lu luubal alalu askan wi wala koo xam ne dañ lay ger nga koy nangu dinañ teg benn luwaa boo xam ne képp koo xam ne gis nga kuy def lu bon kuy sàcc alalu askan wi wala ku ñuy ger yow boo ko boo ko boolee Euh, loi bi daf lay protéger te mën nga cee am tamit lu mel ne ay ay ay ay ay récompense ay neexal ba pare loolu dina fi jëlee ger dina ko wàññi baax a baax waaye dinañ euh, liggéeyu euh, état bu Sénégal tamit liggéeyu gouvernement bi lu ci bari léegi du nekk ci wàllu kayit waaye dañ koy jaareel ci ci xarala yu bees yi wàllu digital nga xam ne lépp sa téléphone nga koy lijjante loolu tamit dina wàññi ger ci misaal rek. policier bi nga xam ne dafa daf laa arrêté ci kaw tali bi hmm, ne la da ngaa war a fay boo boo yàkkamtee da koy neexal mille francs wala 2000 mu bàyyi la nga dem waaye léegi loolu mën naa jeex ndax boo waree fay fi nga toll foofu ngay jël sa téléphone fay directement mu dem ci keesu état bi nga xam ne loolu dina fi jële ger te yow chauffeur bi du la tardeel ndax lila lay li la li la mooy dem nga ngay dem commissariat wala brigade di fayi di jëliwaat sa sa sa pièce loolu daf lay tardeel léegi fi nga taxaw sur le champ nga jël nga jël sa téléphone fay ci sens si loolu nag mooy digitalisation liggéeyu gouvernement bi ak liggéeyu état bu Sénégal lépp lu daan jaar ci wàllu kayit kayit yi dina fi nekk ba léegi waaye boo bëggee boo boo bëggee jëfandikoo internet sa téléphone fi ngay taxaw nga def li ngay def mu gaaw kayit boo soxla tamit ci état bu Sénégal moo xam muy carte d'identité wala këyitu juddu wala looy rek mën koo lijjanti sa téléphone comme léegi xaalis niñ koy defee ci Wave ak Orange Money ak Free Money yu demee noonu nga xam ne fi nga taxaw ngay taxaw def li nga bëgg a def sa téléphone liggéeyu état bu Sénégal léegi bëgg nañ koo yombal loolu nag dina fi jëlee ger waaye dina gaawal tamit lenteur yi nga xam ne moo amoon lépp lu daan yeex ci liggéeyu état bi këyit woo daan wut muy yeex buñ digitalee mbir digitaliser mbir yi dina dina gaawal loolu bu baax a baax réforme yooyu bokk na ci lañ bëgg a wàllu yoon waaye bala ñoom ñu ne bëgg nañoo def tamit bu ñëwee benn audit audit bu yaatu boo xam ne dañuy xayma mbooleem ñiy liggéeyal état bu senegal ak foo man di nekk ndax dafa bari nit ñoo xam ne mën nañ leen di fay te te fekk liggéeyuñ wala ñuy fay ay nit te fekk amuñ wala dee bu yàgg loolu gisoon ngeen ko bi Ousmane Sonko jëlee mairie Ziguinchor bari na nit ñoo xam ne ñi ngi doon fayeeku salaire te mérito wuñ ko ndax nekkuñ fa ñi ngi leen di fay Ziguinchor te ñi nga tëdd Dakar liggéeyuñ sax lool nag audit moo ko mën a régler nga xam ne ñii liggéey ci poste bi kese lañuy ñuy fay alalu Sénégal di dugg fu ñu xam ñaareel bi tamit mooy képp koo xam ne yaa ngi liggéey ñu xool ba xam yow est-ce que li ngay liggéey nii war nga koo liggéey wala déet est-ce que am nga xam-xam bi est-ce que compétence bi loolu lépp audit moo koy régler loolu ñoom bëgg nañ koo def euh, bu ñëwee bëgg nañ def tamit euh, benn yeesal yeesal bu baax a baax a baax gouvernement bu Sénégal ak administration bu Sénégal mu gën a am efficacité gën a mën liggéeyam waaye fexe ba jëmbat te entre diggante sénégalais yi ak gouvernement bu Sénégal ak administration bu Sénégal askanu Sénégal dem ba gisaat seen bopp ci seen administration ak ci seen gouvernement lépp luñ soxla xam ne état bi pare na pour jox leen ko te bu demee mu jox leen ko ci niñ ko bëggee saa ñu ciy sonn ci wut këyit ak leneen lu mën a doon ci fay impôt boo dugalee sa alal nga xam ne lii ci yow lay dellu siwaat kóolute googu ñoom pare nañ pour jëmbataat ko ci diggante administration bi ak askan wi bu dee ci wàllu yoon nag am na euh, coppite yu baree bari yoo xam ne bëgg nañ koo def bokk na ci soppi lii di code pénal ak code de procédure pénale mooy code euh, euh, loi ak tex yi nga xam ne ñooy topp nit ki ñoo koy atte daal li ñuy attee nit ki loolu pare nañ pour pour soppiwaat ko ndax bari na atee yoo xam ne fi mu toll nii ñu ngi koy atte askanu Sénégal te méngootul ak jamono fi mu nii jàpp ab citoyen sénégalais tëj ko ci kaso bi yomb na trop trop trop ñoom nag loolu bëgg nañ ko bëgg nañ ko fee jëlee bëgg nañ ko fee jëlee jaare ko ci nii bëgg nañoo teg juge spécial juge attekat boo xam ne liggéeyam kese mooy sàmm liberté ak euh, àq ak yelleefu citoyen bi juge boo xam ne loolu rek mooy liggéeyam est-ce que citoyen bi niñ ko tëjee jaar na yoon wala jaarul yoon est-ce que kii mënuñ ko woon a bàyyi est-ce que kii waruñ ko woon a àtte yàgg na ci kaso bi loolu dinañ teg juge boo xam ne loolu mooy liggéeyam sàmmu rek àq ak yelleefu askan wi bu fekkente ne kii mën nañ ko libérer ñu libérer ko provisoirement bu fekkente ne kii mën nañ koo takkal bracelet électronique moo ko gënal ñu takkal ko bracelet bañ koo tëj bu fekkente ne kii àtte euh, ko jot na ñu teel ko àtte bàyyi longue détention yi ñiñ tëj ci kaso bi fàtte leen fa bokk na ci coppite yooyu tamit euh, kii nga xam ne mooy procureur de la république nga xam ne dooleem dafa bari woon lool ba pare mu dépendre woon ci ministère de la justice procureur boobu tamit léegi bëgg nañ bëgg nañ ko jox doole joo xam ne du bokk ak jim yoroon benn ministère de la justice dootu ko yilifati dootu dépendre ci benn ministère day moom boppam waaye tamit euh, yombal gim yombaloon di jàpp ni di ko tëj mandat dépôt Euh, loolu tamit bëgg nañ cee jël ay taxawaay ay ay coppite yoo xam ne loolu dootu am procureur seetlu nañ ne ni mu doon jàppe nit ñi yomb na lool ñoom nag loolu bàyyi nañ ci xel bu baax a baax a baax ba indi ay coppite ci procureur fal yeneen juge yoo xam ne ñoo koy arrêté juge de des libertés waaye tamit moom procureur tamit mu bañ a dépendre ci gouvernement bi kenn dootu ko yilif ci ministre yi dinañ fal tamit beneen procureur bu bokkut ak bii procureur boo xam ne moom la ñuy wax procureur financier autonome procureur boo xam ne mooy lijjanti wàllu alalu Sénégal fan la dugg luubal yeeg yooyu maanaam corps de contrôle yi waxoon naa ko ci ginnaaw du bokk ak procureur de la république bi nga xam ne kooka ko spécial lay doon bokk na ci ñoom jël nañ engagement ne liñ signé woon ca assise national ya ñoom pare nañ pour jëfe charte yooyu yëpp muy lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama ñongal alalu askan wi ci sen deret ci sen alal sen dundu ak sen der fexe ba alalu sen euh, askanu Sénégal am sécurité waye tamit maandute am fi ci walu justice kon nee ñom constitution bu Sénégal paré nañ pour duggal ci li nga xamné mom la assise nationale yi doon proposer assise nationale yi ñu wonna ci moy li nga xamné euh, taxawalon nañ ko fi moy ben programme bu mucc ayep Euh, jamonoy 2009 jàpp 2012 euh, ñu taxawaloon ko fi ay borom xam-xam yu bari bindu ci Ahmadou Mactar Mbow jiite woon ko politiciens Sénégal ak société civile beeg borom xam-xam yu bari bari bari participer ci muy programme bu mucc ay boo xam ne ñëpp xam nañ ne lu baax la ñoom waa Pastef nee nañ pare nañ pour assise nationale yooyu lim doon sàkku ngir ñu dugal ko ci suñ constitution ngir gën a ñoŋal nekkinu sénégalais yi buñ ñëwee pare nañ pour jëfe loolu incha allah. ba tey bokk na ci wàllu yoon nee nañ pare nañ ngir yokku tirbinal yi maanaam ngir atte askan wi gën a gaaw képp koo xam ne jàpp na la ñu mën laa atte ci nam gën a gaawee boo waree tëdd ñoo xam ne dangay ngay tëdd la waree libéré ñu libéré la waaye kenn du la tëj ci erreur bu fekkee dañoo war a yokk prison yi tamit ñu yokk waaye fexe ba ñi nekk ci prison yi ñu féexal leen ñi nekk ci kaso yi ñu féexal leen bu fekkeen tamit nit ki dafa war a tëdd kaso tamit ñu koy dimbale ba ci biir kaso bi mu bañ a toog benn place rek waaye ñu wutal ko lu muy liggéey ñu xool lu mu bëgg mu koy liggéey ci biir moo xam dafa bëgg a ñaw moo xam dafa bëgg a tabax wala wàllu mécanique wala wàllu menuiserie moo ko neex wala boulanger lu mu bëgg liggéey mu mën koo liggéey ci biir prison bi sans mu toog kese te loolu dafay am rendement pour moom bu nekkee ci kaso bi ak bu génnee yëpp. Euh, toll ci juróom-ñetti pôle économique ak euh, de développement ñoom bëgg nañu koo jëmbat ci réew mi. mu doon loo xam ne day suqali développement bu senegal bokk na ci ba tey ci wàllu koom euh, nee nañ dinañ teg benn politique benn euh, ay pexe ngir dox jëm ci xool nu ñuy def ba am sunu xaalisu bopp sunu monnaie bopp ndax xaalis mooy lépp loo góorgóorlu góorlu ci wàllu koom te amoo sa xaalisu bopp rek du sotti kon xaalis bii di franc CFA ñoom dinañ xool nu ñuy def ba tàqalikoo ak moom. tek fi sunu xaaliss bopp am sunu monnaie bopp loolu ci seen programme la bokk incha allah buñ ci yàlla dimbalee balaa 2029 dinañ ci àgg donte nag mbiru xaalis moom lu xaw a compliqué la lu jafe la xeex bu méttee métt lay laaj ndax mooy dëgg-dëgg moom sa bopp moo tax du yomb waaye nee nañ dinañ dox jëm ci dinañ teg ay manœuvre ay pexe yoo xam ne dinañ xool nu ñuy def ba am sunu xaalisu bopp te xam nañ ko tamit bind nañ ko ba teg dox jëm ci moo ci des bëgg nañ tamit li nga xam ne mooy li ñuy wax politique fiscale euh, askanu Sénégal wi nga xam ne dañoo war di fay impôt rawatina entreprise yu mag yi nekk ci réew mi loolu tamit bëgg nañ cee liggéey liggéey bu sëriya ngir foofu la askan foofu la Sénégal di jëlee lu baree ci alalam bu ko defee société yu mag yi nga xam ne ñoo waroon di fay Sénégal ay milliards ñu leen ko doon baal loolu tamit ñoom bu ñëwee dinañ xeex ak loolu ba société yi war a fay impôt yépp di fay impôt ñu bañ leen koo baal ñi nga xam ne dañ doon def fraude fiscale di sàcc di daw bañ a fay impôt loolu lépp mm, ñoom xam nañ ko ndax ñoom sax loolu moo ëpp ci seen xam-xam ay ay waa impôt et domaine lañ euh, xam nañ bu baax a baax a baax kan ak kan moo war a fay ak lan la war a fay kon loolu ñoom bu ñëwee dina ci taxaw baax a baax pour Sénégal milliards yooyu mu doon perte ci côté yooyu yëpp ñu mën koo récupérer waat bu ñëwee nag secteur privé bi euh, dinañ ko formaliser. maanaam li nga xam ne moo nekkoon secteur informel ñu formaliser ko loolu tamit xam naa détails yi du fi xaj daal mm-hmm. formaliser le secteur informel gën a dooleel tamit ñi nga xam ne mooy secteur informel bi boo ko defee xëyu ndaw yi xëyu ndaw yi tamit lu leen yitteel la bari na ay kuréel yoo xam ne ñi ngi ci réew mi loolu moo leen taxoon jukk ñoom nag bu ñëwee kuréel yooyu yépp dinañ ci indi ak coppite def ko mu nekk benn kuréel bu tudd la grande agence euh, xam nga lan sur l'emploi et le travail euh, xam nga lan daal dinañ ko kuréel yu bari yooyu yëpp dinañ ko dama ko bindoon bindum tënk moo tax xamatuma sax lan laa bindoon waaye kuréel yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne jamonoy Ablaye Wade Ablaye Wade def na fi kuréel yu bari ngir wutal ndaw ñi xëy Macky Sall naka noonu waaye ba léegi gis nañu tey la ndaw yi gën a jël Nicaragua tey la ndaw yi gën a jël Barça wala Barça tey la ndaw yi gën a dee 2023 bi rek li ci dee mosul dee ci Sénégal kon ñoom loolu lépp bàyyi nañ ci xel te am nañ ci ay solution bu ñëwee bu soobu yàlla teg nañ genn kuréel goo xam ne mooy lëkkale kuréel yooyu yëpp ngir wutal ndaw ñi xëy te am nañ ci ay solution baax a baax ndax li ma lim ni li ma lim nii ci kaw rek loolu lépp day joxe liggéey euh, coppite giñ bëgg a indi ci wàllu napp gi wàllu mbay mi wàllu càmm gi ak pôle économique def euh, et de développement yi ñu war a jëmbat ci réew mi ak dekkalaat dex yeeg maanaam loolu li ci nekk ci emploi kenn xamul nu mu toll lii moom dafa nekk programme boo xam ne bu réalisable la maanaam boo ko tiimee yow da ngay xam ne lii luñ mën a def te ñoom dañ lay wax niñ koy defee incha allah daal ñii moom buñ leen falee rek bu soob yàlla dina baax bu dee ci wàllu njàng njàng ak njàngale ba tey ci wàllu wutal ndaw ñu xëy bëgg nañ ci wàllu jàng jàngale ñu jàngal askanu Sénégal loo xam ne buñ paree rek dañuy daal di mën a am xëy waaye jàng ba yey say kayit te boo paree doo mën a liggéey dara aw làkk rek ngay dégg muy français loolu bëgg nañ cee indi ay coppite ci njàng mi waaye ci tamit euh, enseignement technique ak formation euh, professionnelle loolu njàng mu kaw mi bëgg nañ cee indi ay coppite yoo xam ne dañ ciy gunge programme boobu gunge lañ ko tuddee mooy gunge ndaw yi ñu mën a am xëy am compétence ba ci wàllu jàng ak jàngale ba tey ci wàllu jàng ak jàngale nee nañ bokk na ci seen programme mooy mbaari sàkket ak kirtining yi ñuy jànge loolu ñu jële ko ci réew mi juróomi at yi bu ñu leen falee balaa 2029 bëgg nañ benn mbaar dootu de ci Sénégal mbaar yépp dinañ ko tabax mu nekk ay salle de kalaas Sénégal fi toll nii mi ngi toll ci juróom benn junni abri provisoire juróom benn junni ci ay mbaar ak ay sàkket yoo xam ne fa la ñuy jànge te loolu jaaduwul wóorut tamit ci xale yi te anta ak qualité da ngay jàng ba yàgg muy taw wala ngelaw li wala jaan dugg ci classe bi yooyu yëpp nag bëgg nañ ko fay jëlee balaa 2029 bëgg nañ mbaar yooyu yëpp yëpp benn benn benn ci des zéro abri provisoire lañ bëgg te loolu nii lañ koy defee am nañ programme boo xam ne nee nañ am na programme bu ñu euh, benn système bu ñu tuddee IBM IBM boobu mën na laa tabaxal ñeenti salle de classe ci benn fan ci benn fan vingt quatre heures mu tabaxal la ñeenti salle de classe loolu seen waaye xam nañ ko japonais yeeg coréens yi jamono yi coronavirus gisoon ngeen seen yi noonu ñu doon tabaxee ay saal yi ñu doon euh, def seen maladie loolu ci ci ci ci benn fan lañ koy tabax vingt quatre heures nga am ñeenti salle de classe yu taqaloo te mi ngi jar lépp lépp 15 millions loolu cherut kon bëgg def ak ñàkk bëgg def rek moo ñàkk a ñàkk yooyu rek moo fi nekk waaye li wax dëgg yàlla ku ko bëgg def jafewul 15 millions nga am ñeenti salle de classe ci benn fan 24 heures lañ la koy tabaxal bu ñëwee sa école ngeen leen foo koy def ñu ne fii balaa suba saal yi pare ñoom bëgg nañ salle de classe yi nekk Sénégal yépp ñu tabax ko balaa 2029 ñu am zéro abri provisoire bëgg nañ tamit yokk li mu jàngalekat yi ndaxte nee nañ jàngalekat bu nekk boo séddalee alalu sen euh, askanu Sénégal ñi fi toll ci jàng ñëpp ñëpp ñëpp boo leen jëlee nga jël jàngalekat yépp yépp yépp seenub lim jàngalekat bu nekk dafa wara a tolloog ñeen fukk ak juróomi dongo jàngalekat bu nekk quarante cinq la war a am loolu mooy li normal ci àdduna loolu mooy norme yi waaye nag Sénégal dañoo dépassé loolu foofu jàngalekat yi maanaam dafa néew bëgg nañ nag yokku lim boobu tagat ay kat dugal len ci classe yi ba njangale mi gëna mu ci ayib waye tamit programme biñu jangé bëgg nañ ko soppi ba nga xam ne dafay dëppook euh, liggéey bi nga xamné fimu fi mo xew ci aduna nga xamné bo jangé ba perak, da ngay mëna liggéey waye do fa nek di jang aw langue rek di théorie di dem bëgg nañ leen jangal xam-xam ak man-man nga xamné bo noppé rek da ngay mëna liggéey sa ngay formation pour am liggéey bokk na coppite yi ñu bëgg indi ci njàng mi tamit mooy langue nationale bëgg nañ koo dugal ci fépp ci njàng mi gox boo dem ñuy jàng ñu dugal seenu làkk ci seenum njàng ñi dégg olof di jàng ci olof ñi dégg séeréer di jàng ci séeréer ñi dégg pulaar di jàng ci pulaar ñi dégg joola di jàng ci joola loolu bëgg nañ koo dugal ci programme bi waaye nag jox nañ gëdd bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy daara yi ak école coranique yi ñoom fas nañ yéene buñ ñëwee mbooleem daara yi nekk Sénégal yëpp yëpp yëpp ñu xam ñaata la ak daara ju nekk fan la nekk école bu nekk fan la ak lan lay jàngale bu ko defee ñu jël waa secteur boobu ñi nga xam ne ñuy liggéey ci loolu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ci ay assises ba tënk loo xam ne ñëpp ñoo ciy ànd dëppoo di ko doxal ba pare ñu formaliser ko daara yeeg yëpp yëpp ñu recensé leen dugal leen ci ministère de l' éducation nationale nga xam ne ministère de l' éducation nationale moo leen di yilif état bu Sénégal moo leen di yilif waaye du mel ni mu meloon rek comme neex rek nga dem lu sa benn euh, bâtiment ne damay jàngale loola neex nga jàngale loolu bëgg nañ cee jukk ànd ko nag ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci système boobu waa daara ñu waxtaan ak ñoom ñoom ci seen bopp ñu xool lu ñu bëgg ak li nga xam ne moo mën a nekk ñu taxaw ci mu nekk loo xam ne ask euh, état bu Sénégal moo ko yilif moo ko njàng meeg njàngale mi handicapé yi tamit bàyyiwuñ leen euh, bàyyiwuñ leen ginnaaw bàyyi nañ leen xel bu baax a baax a baax ci ni ñuy tabaxee école yi ak wutal leen ay programme yoo xam ne ñoom ñëpp dinañ ci mën a jànge ak façon handicap buñ man di am waaye tamit euh, li nga xam ne mooy formation ci université yi formation kon hmm, point bi topp mooy wàllu wér-gu-yaram hmm, wàllu wér yaram nag nee na ñoom Sénégal problème du dara lu dul euh, plateau médical bi rek xëy na mooy li am problème maanaam euh, matériel bi nga xam ne moo war a faj askan wi euh, hôpital yi matériel ba fa nekk ñaare moo dul doon matériel bu baax waaye moo dul doon matériel bu doy waaye li askanu Sénégal di génn di dem bitim réew di faju ji buñ demee bitim réew it duñ fa fekk ay docteur ay médecins yu gën a xereñ ñi nekk ci réew mi waaye li leen wutale rek mooy foofa. hôpital ya taxawu nañ ko bu baax a baax ba mu am matériel bu doy boo xam ne bépp euh, jàngoro bu nit di tawat rek bu ñëwee mën nañ ko ko fajal am nañ matériel bañ soxla euh, boo demee bitim réew ay Maroc ak euh, Europe loolu rek la ñu ëppale ñu ne ñun seetlu nañ ne waa Pastef ñooy wax ñu ne seetlu nañ ne sénégalais yi bari na ci ñoo xam ne bu ñuy faju Maroc la ñuy dem te pourtant marocains yi ñoom bu ñuy jàng médecine Sénégal lañuy ñëw ñoom seeni seeni étudiants ñoo fees dellu suñu université yi kon nag kon comme que ñoom ñun ñoo leen jàngal ñun waruñ dem foofa di faju ji kon lan moo ñu manqué ba tax ñu fay dem mooy plateau médical bu baax matériel bi war a nekk ci hôpitaux yi kon loolu fas nañ yéene taxaw ci bu baax a baax a baax foofu daanaka dama koy tënk rek ci wàllu njàng mi sax bàyyi woon naa ci ñaari point muy wàllu handicapé yi handicapé yi tamit nee nañ lu ama am solo la ku ama ko ama am wàccuwaay la ci programme Pastef kon bàyyi nañ ko xel bu baax a baax ci wàllu wér-gi-yaramam daanaka sax lépp dañ ko koy defal gratuite ba pare day am bourse boo xam ne dañ ko koy jox moom handicapé bi jaare ko ci carte boobu nga xam ne moom lañ yor muy carte bu ñuy wax carte égalité de de de des chances bu dee ñi fi nekkoon nii nag nguur gi di génn ñoom doon nañ joxe carte yooyu waaye bariwul njëriñ ndax xam naa ci dara waaye ñoom waa Pastef nee nañ bu ñoom handicapé yi dinañ am luñ leen di euh, luñ leen di jox di leen ko dimbalee muy bourse boo xam ne dañ leen koy jox te bu ñuy faju tamit duñ fay nit ñi tabaxee hôpitaux yi ak nit ñi tabaxee école yi lépp loo xam ne public la buñ koy tabax dinañ leen ci bàyyi xel pour buñ fa bëggee dugg duñ am problème waaye tamit euh, ñu leen di dimbale baax baax ci wàllu njàng wàllu njàng mi tamit ñu def ko noo xam ne képp koy handicapé di nga mën a jàng ak lu mën di doon sa handicap moo xam muy wàllu dégg wala wàllu gis wala wàllu cër loxo wala tànk lu mën a doon rek dinañ leen gunge ñoom handicapé yi ci wàllu wér-gi-yaram ak ci wàllu njàng wàllu formation euh, bokk na ci point yi ma bàyyi woon ci wàllu njàng tamit mooy modernisation euh, de la formation dans les universités mbooleem université yi nekk Sénégal tamit formation bo euh, supérieure enseignement supérieur boobu ànd ak formation technique wala dara bëgg nañ ko moderniser ba nga xam ne kiy jàng étudiant bi bu noppee rek day daal di mën a liggéey waaye doo génn université yor sa diplôme di wutiwaat formation pour mën a liggéey bëgg nañ ko moderniser ba nga xam ne boo noppee rek da ngay daal di mën a liggéey comme système américain bi ni mel euh, loolu moo jëm ci wàllu jàng ak wér-gi-yaram dama ko tënk rek ñu ñëw ci wàllu ndox ak électricité ñoom jël nañ engagement fépp fu Sénégalais nekk foo man di nekk ci biir réewu Sénégal nga am ndox mu doy ndox mu sell ci wàllu naan ak wàllu lépp loo bëgg liggéey waaye tamit am courant am électricité bu doy ba pare nag yomb ba pare yomb ndax Sénégal li ñu yàlla may ci ndox ak li ñu yàlla may ci courant xawma ñaar yooyu fan la war a seere waaye du Sénégal waa Pastef ñooy wax ndax li ñu am ci jant euh, li ñuy wax énergie renouvelable ñoom waa Pastef nee nañ loolu bu ñëwee dinañ ko jox gëddaam dinañ ko exploiter jariñoo ko ba sénégalais gis ci seen bopp courant bi àgg fépp dëkk bi leer ba pare nag courant bi nekk ci njëg bu yomb rawatina euh, loolu maa ko ci yokk muy gaz bi ak euh, pétrole bi nga xam ne ñu ngi koy séntu bu soobee yàlla loolu lépp dina gën a yomb ci réew mi. kon wàllu courant ak wàllu ndox daal nee nañ bëgg nañ képp kuy sénégalais mu agsi ci yow kenn du des kenn kenn cent pour cent ñu atteindre ku boobu bu dee ci wàllu ndox nee nañ dinañ valoriser. les sept cent dix huit kilomètres de côte li nga xam ne yàlla jox nañu ko ci wàllu géej mu toll ci juróom-ñaat téeméer ak fukk ak juróom-ñetti boo déparé ndar ba ba ngay àgg Casamance loolu wax dëgg yàlla xéewal gu rëy rëy la goo xam ne yàlla jox na ko Sénégal di réew mu ndaw nee nag loolu bu boobaa dinañ ko valoriser dinañ ko jox gëddaam dinañ ko jox valeur am lépp luñ ci mën a jariñoo ñu ko ciy jariñoo liñ ci soxla ci ndox ñu ko ci jël liñ ci soxla ci énergie ñu ko ciy jël liñ ci soxla ci wàllu napp ñu ko ciy jël liñ ci soxla ci wàllu mbay ñu ko ci jël bu ko defee tamit ñu dekkalaat kanaal yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal di ay ay ay ay xeeti bras ay xeeti lac yu ndaw ay xeeti dex yu ndaw lu mel ne canal du Kayor canal du Bawol canal du Gandiol euh, Dandemayo euh, yooyu yëpp daal dinañ ko dinañ ci amaat am nañ ci programme bu mucc ayib boo xam ne bu ñëwee di ngeen ci teg seen bët bu soobee yàlla bu ngeen ñu falee yéen sénégalais yi forage yi tamit forage yi nee nañ wax dëgg yàlla seetu nañ ne ñi nekk ci kaw gi day ñoom ay forage kese lañ am muy ndox moo xam ne daanaka mooy loolu ndox miy jógee bi muy dugg Dakar ak Thiès moo ko tane waaye ñoom seen ndox maanaam balee ko tane ba pare ñoom ñoo gën a cherle ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci forage yi te li tax ngeen gën a cherle ñoom xam nañ ko forage courant moo koy dawal courant boobu nag euh, énergie boobu carburant boobu forage bi di lakk tax na ngeen di fay ndox mu nekk ay kii yu cher ay euh, ñu koy waxee facture yu cher loolu nag ñun dinañ ci jël ay matuwaay ba loolu doota am ngeen am ndox mu day ba pare nag mu nekk ci mu nekk ci njëggu yomb incha allah jaare ko ci dekkalaat dex yeek dex dexaan yu ndaw yu nekk ci réew mi yëpp ngir ñëpp mën a jot ci ndox. bokk na ci point yi ci topp wàllu inondation ak wàllu déchet maanaam mbalit ak wàllu habitat wàllu location li lépp Pastef bind na ci lu mucc ayib waxtaan ceeg borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko xam nee nañ wàllu inondation. fépp lañ wax fépp ci réewu Sénégal dinañ fexe ba inondation bi ñu xeex ak moom ba mu jóge fi moo xam ca Dakar la moo xam ca Ndar la moo xam ca Touba la moo xam Kaolack la moo xam fu mën a doon inondation boobu noonu ñoom jël nañ ko baax a baax au wàllu habitat tamit wàllu location tamit indi nañ ci lu mucc ayib kuréel yi nga xam ne ñooy ñoo ñoo ñooy yëngu fii ci wàllu location buñ ñëwee dinañ lëkkaloo ak ñoom lu mel ne kii SICAP lu mel ne SN HLM ak yeneen kuréel yi nga xam ne ci wàllu habitat la ñuy yëngu ñoom buñ ñëwee en tant que état dinañ lëkkaloo ak kuréel yooyu ba mën a jox sénégalais yi ñaari façon location yu yomb benn bi mooy ñu lay luye kër goo xam ne da ngay fay par weer wala ngay fay par at boo fayee ba mu yàgg ba li nga war a fay lépp mat yaa koy moom loolu benn façon la beneen bi mooy ñu lay ñu lay luyee ci njëg yomb nga xam ne dangay dëkk rek saa yoo bëggee génn nga génn loolu dinañ lëkkaloo ak kuréel yooyu tabax ay cité tabax ay aslem ngir yombalal askanu Sénégal yépp ñu am fu ñu dëkk ak ak dëkk boobu man di bëgg a dëkk moo xam muy Dakar moo xam muy Thiès moo xam muy fu mën a doon bu ko defee nag bu boobaa ñi nga xam ne ñoo doon luyee seen ay kër ñoom ñoom dinañ obligé wàññi njëg gi wala boobaa sax état moom moo koy régulariser boppam kon état du fekk ko tabax këram ba pare xamul lu mu ko tabaxee mu ñëw naan ko da ngay wàññi waaye ñoom teg nañ politique boo xam ne bu ñëwee loolu dina mën a wàññeeku ndax dañuy tabax ay cité ak ay HLM yoo xam ne dañ ciy lëkkaloog entreprise yu mag yooyu nga xam ne ñoo ko daan def euh, état jàppale leen subventionné leen dimbale leen ñu man koo tabax ci njëg gu yomb ci wàllu feer ak euh, ciment ak la aju lépp bu ko defee ñu mën ko luye askanu Sénégal wi ko soxla ci njëg gu yomb ba pare nag askanu Sénégal mooy seen priorité loolu fàtte naa ko wax ba may toll ci joxe ay travaux ay marché public loolu lépp ci la bokk toujours ñoom Sénégalais bi mooy seen priorité mooy seen priorité. ñoom ay nationaliste lañ donte ay africaniste lañ waaye sénégalais bi mooy seen priorité ci lépp kon wàllu habitat boobu bu ñëwee sénégalais dañ ci gis seen bopp wàllu déchet tamit euh, jalu mbalit bu rëy boobu nekk ca mbëbës muy gox boo xam ne dañ fay dajale mbalit ak wàllu mbalit loolu lépp ñoom bàyyi nañ ci xel nee nañ mbëbës du loo xam ne dañ ko war a déplacer ndax déplacer mbëbës mooy déplacer problème mbëbës mooy fi nga xam ne daanaka euh, mbalitu Dakar yëpp fa lañ koy tuur léegi nag ñoom jël nañ ci ay matuwaay bu ñëwee dinañ ko ubbi mu nekk genre liggéeyukaay boo xam ne au lieu que mu nekk mbalit day mujj doon sax euh, loo xam ne dañ ciy profité avantage mu doon loo xam ne mën nañ cee liggéey lu mel ne courant wala ñu xool luñ ci mën a liggéey rek ñu liggéey ko ci au lieu que muy nekk foofu rek nekk mbalit mu jëmul fenn wala ñu koy jéem a déplacé environnement nekk na lu leen ñor wàllu climat bi wàllu njëmbat garab sàmm climat bi nga xam ne sénégal yi daanaka àttanatuñ ko ngelaw yi tàngoor wi taw yu manqué yi loolu lépp bàyyi nañ ci xel te am nañ ci ay solution yoo xam ne bu leen yàlla jàppalee askan wi dinañ ko gis euh, li nga xam ne mooy internet tamit seetlu nañ ne cher na lool ci Sénégal waaye tamit bari na bërëb yoo xam ne boo fa nekkee ci réew mi di nga am problème mu réseau rawatina problème mu internet nee nak nag loolu bëgg nañ mu jeex tàkk ci réew mi bëgg nañ fépp fu sénégalais ci biir sénégal nga am internet bu mucc ayib internet xam nga internet moom ko ko am rek wootee wuyu moom waxi nopp waaye nag bu boobaa tamit mu nekk ci njëg goo xam ne gu abordable lay doon boo xam ne sénégalais yépp seen poche dina ko mën a jot mooy wàllu économie wàllu koom waaye bala ma ciy ñëw ma àggale fii rek mooy ñoom nee nañ pare nañ pour bu ñëwee sénégal dina am relation yu forte ak euh, afrique mbooleem réewu Afrique yi daal pare nañ pour liggéey ak ñoom liggéey boo xam ne bu bu bu ama am solo la ndax ñoom ay africaniste lañ loolu nag euh, daanaka jarul dugg ci détails yi rawatina CEDEAO réew ñu gën a jege ay maleek yu demee noonu waaye bokk na ci réforme yi nga xam ne bëgg nañ koo indi ci wàllu justice mooy digitaliser Euh, lépp loo xam ne sénégalais mi ngi koy dund ci wàllu justice mu am ci téléphone am di lire ci téléphone am information accès à l'information. information manager mën jot ci information yi xibaar yi nga bëgg a xam ci yoon nga mën koo xam jaare ko ci jaare ko ci digitalisation maanaam sa téléphone rek nga mën a xam li xew ci ci réew mi ak li la concerné ak li lay xaar ñoom nee nañ tamit état bu Sénégal ci gouvernement wam euh, pare na pour jëfe Euh, li nga xam ne signé woon na ko ak syndicat yi moo xam syndicat jàngalekat yi la moo xam médecin yi la moo xam commerçant yi la moo xam syndicat yëpp pare nañ pour li nga xam ne état bu Sénégal signé woon na ko ak syndicat yi ñu jëfe loolu ndax loolu lépp xam nañ ne rek luy gën lay doon ci askanu Sénégal léegi bu ñëwee ci wàllu économie ñoom nee nañ seen koom kom gi nga xam ne moom lañ fas yéenee suqalee Sénégal seen base mooy wàllu mbay wàllu mbay ak càmm ak napp loolu daal ci lañ fas yéenee euh, sukkandiku bu baax a baax a baax ngir jële Sénégal ci ndóol gi mu nekk yóbbu ko ci développement mbay mooy seen base euh, moo tax dinañ jagleel lu toll ci dix pour cent ci budget bi wàllu mbay kese wàllu agriculture boo jëlee budget bu Sénégal nga xaaj ko fukk nga xaaj ko téeméeri xaaj fukki yépp ci wàllu mbay kese la jëm ba pare nag ñu fexe ba alal ji àgg fam fam war a dugg dugg fam war a dugg buñ ne lii jiwu la ñu fexe ba jiw wi nekk ci qualité baax ba pare mat sëkk ba pare dem fam war a dem buñ ne lii matériel la ay machine la wala ay tracteur wala yu demee noonu ñu fexe ba ma bam baax te mat te dem fam war a dem buñ ne lii engrais la noonu nee na ñoom fas jël nañ engagement wu wutal sénégalais yi jiwu wu doy ci matière yëpp lépp loo xam ne sénégalais mi ngi koy bay fexe nañ ba am ci jiw woo xam ne day nekk ci qualité ba fexe pare tamit pour sénégalais yi lépp loo xam ne ñu ngi koy dunde ñu man koo bayal seen bopp waaye tamit fas yéene dimbale sénégalais yi ñuy dunde li ñuy bay bañ di jële bitim réew li ñuy dunde loolu ay ay ay poñ yu am solo la yoo xam ne Pastef fas na ko yéenee def moo tax mu jagreel 10 pour cent ci budget bi jagleel ko wàllu mbay nee nañ tamit euh, am na ay réforme yu ñu def ay coppite yoo xam ne bëgg nañ koo def ci budget bi budget mooy alalu Sénégal li nga xam ne moom la Sénégal di dundee par at li nga xam ne moom la état bu Sénégal di séddalewaat ci réew mi par at lii dem ci njàng mi lii dem ci càmm gi lii dem ci mbay mi lii dem ci wér-gu-yaram lii dem ci euh, sécurité budget boobu pare nañ pour xoolaat ko baax a baax a baax xoolaat niñ koy séddalee ci alalu ci ci askanu Sénégal xoolaat fiñ koy jëlee buñ ko mënee yokk ñu yokk ko ba pare mu dem fam war a dem ay réforme budgétaire bëgg nañ koo def kon mbay mooy seen base bi leen gën a ñor ci wàllu économie bu Sénégal buñ ñëwee ci wàllu napp tamit fonk nañ ko lool bokk na ci engagement yi ñu jël ay coppite yoo xam ne nañ koo def ci accord yi nga xam ne signé woon nañ ko ak waa bitim réew léegi nee nañ bu ñëwee ñoom dinañ may nappkat yu Sénégal yi nga xam ne ay gaal lañu yor ay pirogue ñu am espace boo xam ne ñoom kese ñoo fa sañ a napp amul kenn ku jóge bitim réew yor sa bato sañ a dugg ci zone boobu di fa napp nga xam ne dañuy jël ci géej gi lu toll ci vingt kilomètres ba trente kilomètres déglu li may wax ni bu baax loolu lu ama am solo la ci napp Sénégal buñ jëlee lu toll ci vingt kilomètres ba trente kilomètres ci guddaayu géej gi boo déparé ci tefes gi nga déparé fii dox ci biir géej gi lu toll ci trente kilomètres ñu ne loolu degleel nañ ko nappkat yu Sénégal kese benn bato bu jóge bitim réew amul droit dugg ci zone boobu dafa napp nga xam ne bu ma ko doon misaal da nga naan nga jël lu toll ne Touba ba Jurbel ci guddaayu géej gi lu toll ne Touba ba jurbeel ñu ne lii moom sénégalais kese kese moo am droit napp fi benn bato bu jóge bitim réew amul droit dugg ci zone boobu di fa napp loolu nag mënoon naa cee yaatal sax njëriñ li muy jural Sénégal suñuy mool dinañ amaat jën te duñ sori doo leen dégg ñu naan dañuy dem Mauritanie ñu leen di rey wala dañoo dugg Guinée wala fenn wala Gambie li ñu am da leen doy sëkk ndax ñun Sénégal ñoo ko ëppale Mauritanie ñoo ko ëppale Guinée keneen ak keneen kon loolu buñ ko defee jën yi dinañ màggaat dinañ am ak dal dinañ am fu ñuy nen dinañ mool yi dootuñ àgg fu sori pour am liñ bëgg am ci jën Sénégal daan daan géejam dina dundaat dina baaxaat dina dekkiwaat lañ daan am ci jën lépp ñu koy am ci jëggu yomb ci njëggu yomb nee tamit ñoom càmm gi tamit naka noonu lu leen ñor la dinañ leen euh, taxawu ñoom sàmmkat yi Euh, fexe ba tamit di leen gunge ci wàllu meew mi nga xam ne ñu ngi koy produire ñu mën a fexe ba meew moomu askanu Sénégal mën koo jëriñoo ñu ñu ñu ñu ñu bañ koo tuur waaye lépp luñ ci mën a produire ñu koy produire waaye fexe ba mu àgg ci askan wi nga xam ne dootuñ ko jëggaane bitim réew dootu cher tamit ni chere woon loolu détails yi duñ ci mën a ñëw waaye lu leen yitteel la mi ngi ci programme ci wàllu mbay mbay mi nga xam ne moo gën a ñor waa PASTEF ndax seen base économique seen base ci wàllu koom seen koom daal fi sukkandiku mooy wàllu mbay Ousmane Sonko ci programme bi nga xam ne mooy programme PASTEF projet bi fas nañ ci yéene taxawal juróom-ñetti pôle économique nga xam ne dañuy séddale Sénégal ci juróom-ñetti gox. gox bu nekk ñu sam fa pôle économique pôle économique bu ñu ko waxee mooy rek benn benn benn bërëb bu yaatu bu ngande boo xam ne ci wàllu économie ci wàllu koom rek lay dox lépp loo soxla ci wàllu koom da nga ko fay fekk moo xam looy defarlu lu ñuy produire wala service boo soxla wala looy jaay wala loo bëgg jënd lépp danga ko fay soxla léegi nag Sénégal dañ ko séddale ci juróom-ñetti bërëb bërëb bu nekk. lañ gën a ràññee ko ñu jox leen loolu xam nga waa Fuuta am na luñ luñ am loo xam ne waa Saalum amuñ ko waa Fuuta ak waa Saalum am na luñ am loo xam ne waa Bawol amuñ ko waalo noonu Casamance noonu Bund noonu noonu lañ ko séddalee juróom-ñetti pôle benn bi mooy région Fatick ak ju euh, ak ak ak ak Kaolack muy Sine Saalum loolu benn pôle la région jurbel Diourbel mbay Mbacké Jurbel ak li ko war Touba loolu benn pôle la boo demee Waalo euh, Ndar ak li ko wër ba Dagana ak euh, Richard Toll ak Ross Béthio loolu benn pôle la <clears throat> boo demee Casamance nga jël région sor région Sédhiou loolu benn pôle la boo demee Bundu euh, Tambacounda jàpp Kédougou loolu benn pôle la boo demee Fuuta maatam jàpp luga loolu benn pôle la non lañ koy topé ba Sénégal jeex Dakar tamit naka non nek pôle bopam nga xamné dañuy jël ay pôle économique jël benn bërëb bu yaatu taxawal fa économie boo xam ne lépp lu waa gox boobu soxla ci wàllu liggéey wala ci wàllu produit yu boo mën di soxla boo demee da nga ko fay fekk looy defaloo di ko fa mën a defare looy jaay Loy jënd Loy demandé pour ñu defal la ko service da nga koy da ko fay fekk <clears throat> bokk na ci liñ bëgg ñoom ba tey ci wàllu dimbale baykat yi mooy dekkalaat dekkalaat dex yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Sénégal dex yi nga xam ne ñoo nekkoon ci Sénégal ak dex dexaan yu ndaw yi lu lépp bëggoon nañ koo dekkal euh, loolu am na yu nekk waalo am yu ne am na yu nekk bawal am na ñu nekk siin fleuve du Sénégal euh, yooyu yëpp daal dex dex dex yeeg dex dexaan yi lu mel ne lac de lu mel ne lac Rose yooyu yëpp bëgg nañ koo dekkalaat ngir Sénégal gën a am ndox baykat yi man di bay ci ndox moomu lépp loo xam ne soxla nañ ko loolu lépp ngir taxaw baykat yi ak bàyyi nañ ko xel muy réseau euh, routier ferroviaire maritime euh, aérien euh, loolu lépp bàyyi nañ ko xel oto yi nga xam ne ñooy jaar ci suuf si loolu sax nee nañ mooy mooy gën a nekk seen priorité ñu ci bàyyi xel ñett bàyyi xel qualité yoon wi nga xam ne ci la oto bi jaar bàyyi xel yan façon oto ñoo war a daw ci Sénégal ak bàyyi xel nit ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci secteur boobu leen lu nekk la ca war bu soob yàlla dinañ ko def ndax nee nañ sax wàllu transport ñoom loolu moo leen ci gën a ñor ndax accident yi fi mu gën a bare mooy ci euh, routière bi maanaam oto yi kon loolu secteur la bu leen ñor ci ñetti bànqaasam yooyu dinañ ci indi ay coppite yu wér muy yoon wi ñuy jaar tali ci boppam qualité bi oto yi daw ci oto ci ci tali yi ak askan wi nga xam ne ñooy dugg ci oto yooyu ñii di ko dawal ñii di ci dugg loolu lépp dinañ ci indi euh, ay coppite yoo xam ne bu soobee yàlla dina jural njariñ réew mi euh, saxaar si naka noonu saxaar gi wàllu transport dem ak dikk ci wàllu géej gi tamit dinañ ko dundalaat baax a baax ci diggante euh, Sénégal ci diggante Dakar ak Ziguinchor ak diggante Dakar ak Foundiougne loolu lépp am nañ ci ay projet yu mucc ayib damay tënk rek gars yi damay tënk rek wàllu aéroport tamit maanaam wàllu aérien euh, transport ci wàllu avion yeeg dem ak dikk ci wàllu jaww ji loolu lépp am nañ ci programme bu mucc ayib ñoom waa euh, PASTEF euh, ñu ñëw ci sécurité bëgg nañ tabax ay commissaria ak ay brigade ci bépp arrondissement ci Sénégal bépp arrondissement rek xam nga région bi day am ay arrondissement bëgg nañ yokku commissariat yi ak brigades yi ñu mat sëkk yokk limub takk der yi Euh, ba pare ñuy liggéey ci loo xam ne moo amal njëriñ askanu Sénégal bi mujjee mooy tourisme ak culture ak sport hmm, yooyu yëpp tamit euh, Pastef ñëw nañ ci bàyyiwuñ dara ndax yu mujj yooyu sax nee nañ ñoom rawatina lii di artisanat ak sport ak tourisme ak culture yooyu dafa nekk ay levée diplomatique maanaam dafa nekk loo xam ne dafay représenter sa réew ci bitim réew damay tënk rek yi yëpp ñoom indi nañ ci indi nañ ci ay ay ay ay ay ay programme yu am solo kon nee nañ ñoom ñett yooyu dañ koy jàppee ay vitrine diplomatique maanaam mooy représenté sa réew ci bitim réew mooy représenté Sénégal moo xam muy artiste bi dem bitim réew wala sportif bi wala artis euh, artisanat bi wala ki nga xam ne dafa ñëw ci réew mi di def tourisme loolu moo tax ñoom dinañ gunge <coughs> euh, acteurs culturels yi ci fond fonds yoo xam ne dañ leen koy dimbalee yoo xam ne dañ koy jox artistes yi ak euh, suqali secteur boobu ñu nekk bu dee ci wàllu artisanat ñoom tamit dinañ leen dimbale ci benn fonds d'appui boo xam ne cinq milliards lay doon par at juróomi at yi ñu fas yéene nekk fii ak deux mille vingt neuf at mu jot dinañ dugal cinq milliards mu nekk loo xam ne dañ koy dimbalee artisanat yi euh, ndax ñoom waa Pastef dañoo dañoo favoriser consommer local lépp loo xam ne sénégalais mi ngi koy liggéey. ñom loolu moo leen gënal lu ñuy jënd bitim réew nga xam ne jënd manono ñoo dem ba sunu gouvernement limi soxla material ci matériel ay sénégalais ñokoy liggéeyal mo xam ci walu menuiserie la mo xam ci walu li sol la seen costume yi ñuy sol mo xam ci walu meuble yi lépp loo xam ne daal sénégalais man na liggéey rek ñom état bu sénégal favoriser ñu jënde ko sénégal pour suqali suñuy artisan euh, moo leen gënal ñu koy jënde bitim réew kon loolu mooy consommer local bokk na ci programme Pastef tamit loolu lay tëjee daanaka mooy ñoom dañuy aaye cumul de fonction cumul de mandat lépp loo xam ne askanu Sénégal ñoo la ciy fal daal buñ la ca xasee fal dootoo amaat ganeen ndomba tànk comme ça nga nekk directeur nekk ministre wala nga nekk ministre nekk euh, euh, nekk député nekk maire wala yu demee noonu xeeti cumul de mandat yooyu cumul de fonction yooyu dañ ko fi jëlee xam na wax ja xaw naa jaxasoo <laughs> ñu ngi ciy jégalu baax a baax a baax programme bi moom yaatu na lool yaatu na lool man maa doon jéem a tënk nii rek waaye xam naa ne li ma bàyyi moo ëpp li ma indi mbokk yi askanu Sénégal daal yaakaar naa ñi ku leen fal doo ko réccu bu soobee yàlla ndax programme bi li ci gën a neex mooy président bii nga xam ne ma euh, candidat bii nga xam ne moom lañ bëgg a fal muy Bassirou Diomaye Faye moom moo jiite woon liggéey bi liggéey bii nga xam ne liggéey nañ ci ñeenti at jàpp euh, ñetti at jàpp ñeent lu mat junni boroom xam-xam ak ñeenti téeméer euh, participer ci trois cent soixante experts ki leen jiite woon ñoom ñëpp mooy ba Bassirou Diomaye Faye mii nga xam ne mooy candidat bi maanaam liggéey bi moom moo ko jiite woon bi ñuy bind programme bi moom moo ko jiite woon moom mi nga xam ne mooy secretaire général du parti kon nag loolu ay sens yu tombe maanaam li ñuy wax tawfiq mooy loolu rawatina coalition bi ay homme de qualité nekk ci biir ay homme de qualité ay borom xam-xam ay expert ñoom ay nit ñu jub ay nit ñu jub ñu mel ne ñoom marito ñaan ñu mel ne ñoom Cheikh Bamba Dièye ñu mel ne ñoom Moustapha Guirassy ay Dëmbooj soxna Aminata Touré ay Cheikh Omar Diagne ñu mel ne ñoom Charles Emile Ciss ay ay ay homme de qualité ñoo nekk ci biir ñoo wër Ousmane Sonko ay borom xam-xam ay kàngam ay nit ñu maandu ñii daal ak programme bii ak équipe bi bu ñu amee sensu teg ñii ci suñ bopp réew wallahi bu boobaa bu soobee dina baax bu soobee dina baax de ñii daal nañ fexe ba bu ñu rëcc képp koo xam ne mën nga leen voteel voteel leen bul ci yam nga fexe ba soññi yeneen nit tamit ñu voteel leen loolu mooy voter et faire voter yow nga vote ba pare fexeel ñeneen tamit voteel leen moo xam sa jabar la moo xam sa jëkkër la moo xam ki nga bokkal kër la ki nga bokkal koñ ki nga bokkal fu ngeen di liggéeyee ñi ngay dégganteel ci réseaux sociaux yi koo ci mën a dugal rek ngir mo voteel programme bi ak équipe bi defal loolu yaakaar naa duñ ko réccu bu soobee yàlla yal yàlla def tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullah